ci mbir mi moo di ni jëppal la xewewaat kër gi ba tey ñëpp tiit xaw tuut ñu ñàkk seen bakkan si ab explosion gaz. te dañuy toog ci waañ bi jël gaz bi di ci toog gaz bees tàq bu fees dell sax buñ ci toog ba ci yàgg jànq bi ñëw daan ah gaz bi de mi ngi xeeñ sama sër bi ne ko mi ngi xeeñ ñu ne ko waa ñu ne ko fayal gaz bi ñu fayee gaz bi ñu jël gaz bi génn ko fii ci cour bi. daal di jël beneen bu gàtt bi taal ko ci waañ bi di togg sama frère bi nekk fi woon dafa demoon hôpital yóbbu sama sœur maag sama yaay ñoo fi ne ak sama sœur bee may ñu ko sax fu mu fu mu nooy dafa ñëw ñu ne ko régler problème gaz bi dafa ubbi gaz bi rek gaz bi topp ko ak kubéer beeg yépp cheikh mi moo xettali ay jigéenam ak yaayam yàlla rek ak dimbali ba mu génn si lu ni mel. subab bi dafa dañ resté si bég bi affaire bi di tuuru sama kaw parce que dafa dafa ne pëf. ma yóbbu ko si teg ko. ni ñu taxawoon puus leen booy puus ma bàyyi ko noonu gaz bi sotteeku gaz bi génn ba jeex. ñemeetuñu sax taal gaz si bile kër. këriñ la ñuy toggee bouteille gaz baa ngi nii bi na doon yóbbu seeni bakkan dañu ko denc gannaaw ba ñu porté plainte bouteille yu juróom-ñeenti kilo la couleur bu orange ñu bind si lo numéro 28. mu mel ni nag Total Énergie xam na ni bitéelu gazam yi bokk ci bileloo am nañu problème ndax bind nañu ab communiqué di yëgal rekk askan wi ngir ñu delloo si leen yii yile butéelu gaz ngir ñu mën ko gëstuwaat bu Bounama Sow mi jiite association des amis de Derklé moom ba tey xelam dalul. lu ñu bëgg mooy c'est le retrait de toutes ces bonbonnes ñu xoolaat leen inspecté leen xool lan mooy défaut de fabrication bi parce que nit ñi yàgg nañ utiliser gaz madame. kenn la xelam dalatul fii ci Derklé jaaykatu boutique bi ay matukaayam yu am solo la jël. boobu léegi boo indee gaal bu dee bu baax bu bees la dama ko jël te man dama am client spécial bu amoon ku ma koy jaay depuis ma ni quartier bi yëpp nekk ci titange li fi xew fan yi ñu génn rek mu di explosion gaz bu am ba lu tolloo ko juróom-ñaari doomu aadama ci benn famille ñàkk ci seen bakkan loole ba tey dafa des ci xol yi.